رحيم مولاك خير الجزاء منا دارك مولاك جزاك يا خلاء ابراهيم مولاك خير الجزاء منا دارك مولاك زين جزاك يا خلاء رحيم مولاك خير الجزاء منا كولاك جاءك يا خلف رحم مولاك خير الجزاء منا ذلك كولاك بما جزاك يا خلف رحم مولاك خير الجزاء منا ذلك كولاك جزامنا دارك أولاك جزاك يا خليل رحيم مولاك خير الجزاء منا دارك أولاك جزاك يا خليل إبراهيم مولاك خير الجزاء منا يومنا ذلك أولاك جاءك يا خير رحم مولاك خير الجزاء منا ذلك أولاك بما جزاك يا خير رحم مولاك خير الجزاء منا ذلك أولاك زامنا دارك أولادا غزالا قبل الفتام أجايب سيخ الإنزال فولت همري إلى المختار سيدنا عبد كريم وذاك سيخ الإنزال هلم كثير وفعل زالح وأياب sumtul wa sabrun tawilun laka zirzaar di rafetlu bu baax nag jitaay bi di ñaan képp koo xamee ni mën naa ni biig ba léegi lu fi waay yëkkati ci xasaayit yal na ko saa borom nungu ak la ko jiitu ci barki Serigne Touba di ñaanal jëm ji nga xamee ni mooy kilifa ci jitaay bi muy sëñ Mamadan mu Seex Murtala balay sa ñu ngi lay wax dalal jàmm di ñaan yàlla sa borom defal la jàmm la fa nu gudd ànd ak wér di rafetlu bu baax jitaayib kenn ci jitaay bi muy Serigne Seex Bara Lahat di kenn ci yoonu murit ñuy ñaan yàlla sàmbaram defal ko jàmm may ko fan nu gudd ànd ko wér waaye sëriñ bi saara ñu ngi lay sant bu baax te la ñaanal muy sëñ Xalil ñuy rafetlu bu baax teewaayu ñuy sant yàlla di sant jëmm ji nga xam si ni mooy Serigne Sidi Sarr muy xalifa Cheikh Ibrahima Sarr yàlla na nga xam ni mbooleem koo bokkal mbaa mbooleem ku dib taalibe mbaa koo mbaa mbooleem ku ne ñu ngi lay sant Sarr di la ñaanal rawatina sa rakk yu baax yi. te bu baax say rak yiir nga say rak téye nga sa ay rak waaye say rak itam diglu nañ la yàlla na yàlla sa borom yàggal taxawaay bi may leen fan gudd ànd ko wér kon duma sori damay wàcce sama kàddu jox kenn ci njaboot gi muy sëriñ naa Sarr bu ko defee mbooleem kilifa gu fi teew tey mu ah mu fi biral ko doomu aadama yépp dégg ko ca yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba rekk tax kon sëriñ Seexuna bisimilah. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Seexul Xadim Xaadimu Rasuul sunu yaakaari tey ak ëllëg di wax ne am nañu bégte lool bégte mu yaatu ngir borom bis bi ñëw na teewa bisam mënoon naa yéen ne mu doy bisub Cheikh Ibra Sarr la bisub Serigne Sarr Cheikh Ibra Sarr ko moom Cheikh la Sarr gi ñu toog kon sant nañ ci yàlla bu baax ci ndigalul sëriñ xalilu saar mi jëwriñu borom barab bii ci kilifaam sëriñ sidi saar moom sëriñ moodu saar mi nga xam ne moom lañ duppee bis bi démb bay ci saweewu tànk sëriñ sidi njaboot gi sant nañ leen bu baax a baax a baax seen taxawaayu biig rafet na waaye digal nga kilifa kilifa yépp njabootu seex wala saar gépp ñu toog ñëpp teew ne kon noo ngi wax ci sa kàddu ci ne la njaboot gi bég nañ lay ñaanal yàlla euh, sëriñ Xalil day xam nañ ne bëgg na bu baax xolam sedd na lool ngir lim doon def loo rakkam yi di sëriñ Mamoun Sarr ak sëriñ Mame Cheikh wallaahi juumu leen yàqatewu leen yal na yàlla fay leen yéen de bu fekkoon na ñëpp ne yéen ñi la mel tabaarakallaahu dara du ñaaw dara du yàqu kon sëriñ Xalil mi ngi wax ne borom bis bi ñëw na ci bisam kàddu yi moo ko moom borom kër gi nag tey seen moo di sëriñ Sidi nee lépp lu ñuy jiital ci turu ki moom kër gi te mooy sëriñ Sidi Moxtaar Mbakke mooy boroom kër gi ndax benn car la wala benn bànqaas la wala bokk sax ma ne genn kees la ci kees yi Tuubaa ndax Tuubaa kat bu doon genn kër damay wax ni barab bii benn kees la ci kees yi bu doon garab ci nit benn bànqaas la ci bànqaas yi kon nee na ñu ngi jiital nuyoo bi ak cant gi di ko jox boroom ki nga xam ne tey jii barab bii bu amee dara bañ ci màndargaal lenn ngërëmal yàlla sëriñ Tuubaa la te kooko tey mooy Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla gërëmal yàlla na ab liggéeyam àgg yabal na fi ki mu fi baaxoo yabal te mooy sëriñ Cheikh Baara Laat tabaarakallaa yàlla na yàlla dëgëral la ba sa yéene ci sëriñ bi nga àggale ko sëriñ bi yéeneem ci yow nga àggale ko sëriñ Xalil say bokk yépp ñëw nañ mbooloo day li ci dàq boo wootee say bokk wuyu la boo wootee nag lu mbooloo mu xumb xumb xumb lu ñu nuru ñu am daraja te say bokk ñëwagut dara baax baaxagut sëñ Xalil nañ sant yàlla bu baax a baax sa waajur bu baax wa day lam waxoon ci dëkk bi xam na ko de bisub biig bii tegtale na lam waxoon ne li ma bëgg ci dëkk bi bu ma ko doom defalut sët màgg defal ma ko sët yi def nañ loo xam ne Serigne Khalil noo la koy seere lépp ñoo ngi ciy jokkoo ci internet beeg fenn fone ne tabaarakallahu jëf ju yaatu la damaa bëggoon rek bala may wax ci ñenn ñu fi ñëw ndax dafa xat te sëriñ bi jox ma ndigal ne ma yii ñu bindoon nañ ko bàyyi ndax temps bi jaax jàll na te tamit kilifa dee su ko téye ci jataay lu yàgg te guddi na waaye am na bokki taalibe yu ma tuddoon te seen seeni liggéey ñu jaarale ko sama loxo ma teg ko ci loxo sëriñ Xalil mu jox ko sëriñ maam Cheikh mii nga xam ne moo yore mbooleem li ñuy coordonné ci njabootu kër Seex Sëriñ Saar waa Côte laa ciy jiital waxoon naa ko nit nag day fekk ne la Sëñ Blaat waxoon nit du sant ku defut dara waa Côte d'Ivoire yooyu nag danaa ci wax yaari baat rek ngir bëgg ñépp xam ne li fi nekk ñoo ko moom at mu jot yëkkati nañ million wala lu manqué million jox ma ko ma jox ko sëriñ bii mu def ko ci liggéeyu jumaa ji waaye ku dul loolu ay benn benn nu ci fekk nooy dajale suñuy alal ci sëñ xarit mii lañu koy tàmbalee boole ko ñenn ñu dajale seeni alal ñu def ko ci liggéey bi waaye damaa wax bërki démb na ñépp buñ meloon ne waa Côte d'Ivoire mux mux gii dana yëg boppam ci àll bi wa ma shahidna illa bima alimna ku waxu dëgg wax la ca des te man duma waxal kenn ne ko yàlla nuyu la te gisuma ko tabaarakallaahu jërë ngeen jëf ci ko wet jumaa ji nag borooma ko bëggoon am na lum fi waxoon la mu yeex ma mel nii mooy daf maa biir ndéma ne la mu lëggéeyal Serigne Touba ba mu fay ko jumaam jii mu bëggal Serigne Touba ci dëkk bii alali mooy yàlla du ci dugg alal ju sell ciy dugg ndax jumaa ju sell lay doon ndax am na jumaa yoo xam ne bu noppee ku ci julli yàlla jéggal la te wér na mën a ci lay bokk sant nañ yàlla ci googu wet wax naa ko bërki démb nee naa mosuñoo tàllal suñu loxo kenn ci dëkk bi te luñ bëgg am na fi du nun du sëñ saar sëñ tubaa sëriñ bi noo ngi dellu si waat ay kàddu di wax ne ñi fi jot teew dañ ma dig ne ma naa wàññi kàddu yi waaye ñi fi jot a teew teñ man leen a lim sëriñ Abdul Karim moom sëriñ Abdul Asis moom sëriñ Baara sëriñ Cheikh Marema Mbacke moom sëriñ Abdul Karim moom sëriñ Baara sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Soy bu yabal na fi doomam sëriñ Hamsatu Mbacke sëriñ Jili Mbacke Pakala mi ngi ci jataay bi sëriñ Jili Mbacke moom sëñ Mahamadan moom sëriñ Abo sëñ Abo Mbacke moom sëñ Mahamadan waa kër sëñ Mahamad ñu ngi ci ñu ngi fi ñu ngi fi ñu ngi ci biir jataay bi sëriñ Mourtala Mbacke ak sëriñ Fallou Mbacke moom sëñ Modou Fati Xari ñu ngi ci jataay bi sëriñ El Hadj Mbacke sëriñ El Hadj Baara sëriñ Moustapha Mbacke moom sëñ El Hadj Baara e, fi la yendu tabaarakallah sëriñ Moustapha Abdoul Ahad yabal na fi taawam sëriñ Modou Mbacke mu ànd ak rakam ak mbooloo tabaarakallah e, maa ngi koy tuubaay sëriñ Sidi Mbacke yabal na fi doomam Serigne Abo Mbacke ma ànd ak sëriñ Cheikh jóob moom Serigne Modou Massamba Diop Serigne Abdoul Ahad Ndiaye Jolof tabaarakallaahu fi la ñu yendu ci taxawaay bu mat sëkk ak jëf yu rafet yu bàyyi ko ci Serigne bi ak sant waaye borom kër gi nga xam ne damaa wax ne keroog ci ci bëccëg bii mu agsee la ma ko njëkk a wax mooy sëñ Basiiru bég na sëñ Saar bég na Cheikh Ibrahima Saar bég na sëñ Tuubaa bég na. ndax kooku kër gi moo ko moom te mooy soxna Sofi Mbacke moom sëriñ ba sëriñ Basiru eh, njabootu Cheikh Ibrahima Sarr day kenn mankiwu dama doon bëgg a gàttal rek ci buñ ma joxoon ndigal waaye damay wax ne juróomi boppi kër Cheikh Ibrahima Sarr yi ñëpp ñëw nañ ma tàmbulee ko ci kilifa gii ma wax ne eh, noppalul boppam ci ñun te mooy sëriñ Siiri Sarr su doon noppal ci boppam ci ñun day yebal kenn ci biir njabootam ñi ci des ñëpp ñëw teewal ko waaye bis bi jaral na ko ko ngir boole Cheikh Ibrahima Sarr ga ak bay Serigne Sarr ndax Cheikh Ibrahima di ab liggéeyam bi bëgg a mat woo na leen woos bay Serigne boole koog sëñ Mour Sarr ne ko sëriñ Sarr sama ga ngoogu ànd leen mooy sëñ Mour saar woo sëñ Fallou Sarr ak sëñ Mbacke saar ne Serigne Mbacke mu ne ko Mbacke mun ne ko sa sa sa rakka ngoog ànd leen. woo sëñ nooru Diarra Sarr ne ko seen rakka ngi noonu mi ngi seen biir loole mooy boole mag nga noonu la doxe woon tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñëw nañu sëriñ Soy bu Sarr yabal na jabootam gépp yàlla na yàlla fëgg boppam te yëkkati ko te bàyyi leen fi ñu gudd fante wér yàlla bu ñu amoon ndog eh, kon xanaa ma ñëw ci ñi nga xam ne ñoo moom jataay bi kooka nag buñ koy wax ka mooy sëriñ Mahmadou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada nga xam ci yëmu yëmul ci ne daa moom jataay bi waaye daa moom njàmbur jikko ju rafet nag moo ko ko taxa moom sëriñ bi moom mën naa jur ci ci deret waaye la gënal sëriñ bi te mu koy te mu koy jabootoo mooy jikko ak pas-pas sëriñ Mahmadan ku ko xam xam ne yi waajuram yu baax ya dambe woon mi ngi ci yoon woowu te di ko xeñtu te tëggiwu ca tànkam nit nag lépp lu mu teg tànkam te waaxu jëm ca te bëgg ko yàgg-yàgg dana ci jot kon am nañ bu wér la sëriñ bi yoroon te mu nekkoon ci loxoom te pas-pas dong mayoon ko ko wallahi lan sim danga ci jot yàlla la ko yàlla may te dimbale la àggale sa yéene ba sa yéene ci biir njàmbur ak si biir mox mox gi te yaa ngi ci sëriñ baaralaat mi ngi fi day mel ne li sëriñ Mahamadan di kilifa jataay bi lépp lépp a ci loxoom ndax euh, sëriñ sëriñ baaralaat mii dafa bàyyi ko ci borom borom borom kër yëpp li ko li Serigne Mahamadan di waajuram di kilifaam téewut baatu jataayu kilifteef gi day mel ne day tàbbi ci loxo yi sëriñ Cheikh baaralaat ngir lan daa yore baatu baat yi ku yor baatu baat yi nag damay yaakaar ne mbooloo moo tàbbi te muy yoonu te te muy te muy yoonu yoonu baat ba ku xam sa bopp da nga xam ne suñ baara laata ko moom yàllaa dogal loolu te nit day nangu dogalub yàlla sëriñ Mutla daana wax ne jaam ñi yàllaay seen boroom ñi ci di taalibe sëriñ Tuubaa yi seen sëriñ ab jaam day nangu dogalub yàlla loolooy dogalub yàlla njaboot gu yaatu bokk na fi ndax kilifa yaa ngi ni toog bu may tudd damay wax ne Serigne Abo moom sëriñ Mout Sarr euh, Serigne Abdou Samad Serigne Maam Cheikh Serigne Niisu Touré di kenn ci kër gi tamit tabaarakallaahu baax na mbay kenn desut waa damay wax ne waa Thiamène waa Kokki ñëpp kenn desut waa Bulel kenn desut sunu bokki bopp yi nag kenn desut kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di di di santaat yàlla di wax ne sëriñ bi day képp ku yëkkati sa jéego tey dox te delluwoo gannaaw loolu sëñ laat waxoon nee na man de duma xaare otoraay la du wàcc yoon te duma xaar kenn te duma taxaw tamit te ma geesoo damay dem rek ku ko dab nag dana la yóbbaale waaye borom kër gii dey wér na ko ne wér na ñépp ne taxawut xaarewut damaa waxoon ne liggéeyu sëriñ bi day bay sëriñ Saar desu ci gannaaw te nit bu fekkee ne nit bu fekkee ne dañ ko toqantal ci mbir yar ko ci mu juddu ci yaroo ci màggoo ci te sëriñ bi moom damay wax ne doomu taal la na nga ca béréngoo ko cay taqe te moonte léegi-léegi gis koo xam ne day dafa fa def benn saa te day takk ripp pas-pas a koy sa takkal te pas-pas boobu Serigne Sarr amoon na ko loolee Serigne Sarr moomee di mi ñu defal bis bi tey sëriñ bee ko tuddal boppam moo ko yaral boppam moo ko daan leel moo ko daan sëlëm moo ko daan defal yu bari kon yaakaar naa cër ba muy mën a am ci dundam gépp ci nekk kook sëriñ bi ndegam ka fa def seen saa moo cay tax ripp sàkkaa ña nga xamante ne nag dañoo dund ci biir sëriñ bi seen dund gépp ci laaju kon sëriñ bi nee na mi ngi sant bokkam yi waaye rawatina rakkam yi ak magam yii rawatina soxna yi soxna yi waa kër sëriñ Serigne Sall yii te mooy njabootu boppam gi ñu tàmbalee ko ci soxna say soxna Loota Sarr soxna Astu Sarr soxna Astu Gaawaan Sarr soxna Mam Faati Sarr soxna Waalo Sarr ñoom ñëpp kenn desut soxna Musli Sarr ñëpp ñu ngi ci biir jataay bi kon noo ngi leen di wax ne sant nañ yàlla bu baax a baax a baax ngir ne amul kenn ku des kenn ku des kon sant nañ yàlla sëriñ bi nee na tamit mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm yéen waa dëkk bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm yéen njaboot gii nga xam ne yéenay njabootu kër sëtu Cheikh Ibra Sarr yéenay njabootu kër Cheikh Ibra Sarr sëriñ xale day sant na leen bu baax a a baax ndax damaa waxoon ne lépp loo xamante day dox ba agsi cay loxo te mu wóor ne ëllëg yaa koy yor war nga cee teel a farlu te téye ko bu baax te góorgóorlu nanu jëlaat suñu takk suñu takkaay takkaat suñu ndigg te góor te waaxu di dem te xam ne koo xam ne ku ne ku ne ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem boo nekkee ci dëkk doo am lu dul boogee sax nga gis mbooloo sa gannaaw kon nanu jël ak dëkk teg ko sun suñ kanam Cheikh Ibrahima Sarr daf noo tënk de bàyyiwul ñuy neen de bàyyiwul ñu sun bopp rek fu nu neex ñu jëm kon nanu nekk ci wenn say te góorgóorlu te jub te nekk ci ak dëgg te bàyyee suñu bopp sëñ Tuubaa wallaahi laasim liñ bëgg danañ ko am noo ngi jégalu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billaahi mina seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala barkeb Seex Sëriñ Saar ah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen jaare ak sa mbokki taalibe yëpp nag ci bisim Seex Sëriñ Saar bi di leen sant tey kàddu la bu ñuy mën a wax ñëpp dégg ko sëriñ si dana nuyu sëriñ si ñun ay donge la ñu ñun togg yi nag ñoo waajoon liggéey liggéey bu rëy du ko jëf tey ji di ko génne jëfal ko jëf joo xam ni jàmbaar ju fi nekkoon jëfalul ko Cheikh Sëriñ Sarr muy Sëriñ Modou Sarr di doomi Cheikh Sëriñ Sarr boo xam ne foo moo moo ak ci tey moom la mu am ngërëmal Cheikh Abdoulaye am ngërëmal Baye Sëriñ Sarr am ngërëmal taalibe yi ma liggéeyoon liggéey boo xam ne dañ koy décorer Cheikh Modou Sarr taalibe yëpp ko bokk Bakar Diagne génn ko ñu jox ko Cheikh Bakhalaat mu jox ko njaboot Cheikh Abdou euh, ngir moo fi jëbi Cheikh si Maxtaar tey asalaamaaleykum wa rahmatulaay mooy liggéey bii. yónnee na fi délégation ak teraanga joo xam si. alhamdulilahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqihi. sayyidina ama baad fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbooloo mi ngi leen di nuyu ci turu bokk yi ñi nga xam ni ñoom la Cheikh Ibra Sarr boole cig bokk ñu teewu ci bisub Cheikh Serigne Sarr bi dëgg la bis bi Cheikh Serigne Sarr a ko woote ciw turam lan fi daje waaye nun ñi fi daje Cheikh Ibra Sarr moonu moonu boole ah, di gërëm nag bu baax daairatu xafadati Cheikh sëriñ saar yi nga xam ni ñoo fi daje na gën a na gën a démb invité Serigne Gana Messere al Mokhtar mu doon waxtaan ci seen maam ndax kat bari na ñoo lool lool fim na ci jamono yi ñu toll ñuy dajaloo ngir seen baaxug maam ngir seen maam te fekk na seen maam moomee wax dëgg yàlla manqué na Cheikh Ibra Sarr Cheikh Ibra Sarr li nu defal mu nu defal maam du ko defal ay ay hafada ay sëtam ñooña di ko fàtte ndax àdduna si li muy xat xat xat xat defuñu ci lu weesu fàggu sunu ëllëg wa arxabul asyaai lil amwaati raddun ila dunya mahal xayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfaahum in xafalu noonu sunu capacité force bi nga xam moo nekk ci sun jëmmi yaram yi mayunu lu capacité nu jaamu yàlla la la la nu war a jaamu yàlla pour am lu nu war a tedde tey ak lu nu texee ëllëg Cheikh Ibra Sarr sunu maam ju baax ja fab ak ab boppam jox ko Serigne Touba ba Serigne Touba egg ci laaj ko ruug boppam mu joxe ruug wagee loolee kero ba Serigne Touba yóbbuloo Cheikh Ibra Sarr Njaañ ñu dellu si mu ni maanaam Ibra Sarr ñàkku leen ko am te kon ku ñàkk Ibra Sarr muy man te ma Ibra Sarr ndax foofee mu tëdd bu fa tëddul woon tey ma tëdd fa ba mu ne Ibra Sarr tey la de mu ne jekk na daa ñibbi këram rekk mel ni lu fat ca loolee la wuy ji boroomam sëriñ bi ni nañu ma yóbbul Ibra Sarr Tuubaa mag ñi gise ni daal sëñ bi dafa xamul fi ne moyen de fi mu toll ñu ne ah buñ sangee sàng gas bàmmeel bu ñu jëleeg ñaan dina ñu jox ndigal ku ñu yabal sañ ma sàmba ba mu demee di jëli ñaan ba sëñ Touba gis ko dafa tàmbalee belli di bég naan yóbbul nañ ma Ibra Sarr Touba ba noppee ndax maanaam lam koy préparel ci xéewal moo waral mbégam moomee waaye nit du ñàkk ku nite du ñàkk ku toll ni Ibra Sarr deeti feeñal mbég te fekk deful ci moom la nga xam ni wóor na ko ni moo gën li mu doon tedd ci adduna sëñ ma sàmba ni ko moom de Mbàkke dafa mel ni fere yi dañ ko doon waaj a yemale fii sëriñ bi ni jalab jalab jalab soppi kanam gi ni ma sàmba fere yi maa leen di jox ndigal wala ñoo ma koy jox mu ne tuub naa de Mbàkke mu ne nañ ma yóbbul Ibra Saar ba Tuubaa te bu mu laal suuf ba ñu ko yóbboo guy texe gii ba dellu ba ba ba mu ne nañ ma dajaleel njabootu gi Ibra Saar gi dafa jóg ak jëmmam ju tedd ja dox tànki neen wër leen ne jaay Mor Saar nee na daray Sëñ Tuubaa du asaar ba mu nu wëree la dox sunu diggante ak lépp loo xam ne bu ko nit ke defee sari xani ko déet kalimatu sajrin oh. sajrin kalimatu sajrin min asari lam tas daa saqu usnay waahid min abnaa i Cheikh Ibra Saar baatub déet sariya mësu koo wax doom ju Ibra Saar jur li ngeen def giñ naa ko ci barkeb sëriñtu ba mënu leen a fay seen maam ya mënu leen a fay seen baay ya lañu defal Sëriñ Tuubaa jox ko seen bopp te muy dëgg ci ñoom liggéeyal ko ba làq ba làq ngërëmam loolee mooy li nuy tedd tey jii mooy la nuy tedde ëllëg loolee ba mu ne ndax kenn ci yéen mën na bayit ya ma ko defaloon seen baay bii nu fi daje la tey moo ne mën naa bayit ya mu ne waxal mu ne jasaaka yaa xillu ibrahimu mawlaaka li ëpp ci jàngkat yi kat ibrahima la ñuy wax te yaayi yaayi naa munaadaa jooj yi fi dox di munaadaa nakiratu maqsuud moom du man lu dul rafaata kenn du ko tanwiin yaa xillu ba dal la kon ibrahimu la ñuy wax jasaaka yal na fay la yaa xillu yow xarit bi ibrahimu turam ibrahima ku koy fay maagu laakaa sa borom yow mii may waxal lu mu koy fayal xayral jasa ngeen ji pay wa aw laakaa ta mu méngale la mu naa daaray ka sa mébéti ñaari kër yi muy àddina ak àllaaxira fadum mu daal di joxe lu mel ni ndigal ala sidqi faxlam bi an naka bam ne faxlam bi an naka indi sóori dan abadan sëñ Tuubaa ko ne taxawal mu taxaw mu ni ko sóori dan abadan jooji bi ma ko waxee Ibra Sarr ànd naa ak moom di ko teral di ko teral di ko teral ba dugal na ko àjjana ku sëtu ci moom mbaa nga jébbalu ci moom mbaa mu jur la sóori dan abadan dina la ànd ak yow ci àdduna di la teral te bala laa bàyyi dugal la àjjana ma ni maam ju fàggul lii ay sëtam bu ñu dajee def ko lii laa lii lu war la biig dégg naa gànna mesar al muxtaar ni yaari yëf la ko digal mais yatt la fadum ala sidqi wal ixlaasi mujtahidan jooji way wee tax mënu ni wal ijtihaad mu daal di koy def xaal mujtahidan mbir mu may aji farlu waaye wallahi ñett la al ijtihaad nag xëy weesu koo mën a taxawe te jàngoo ba ni arr al ijtihaad mooy li nga xam ne sariha dina ko soxla nit ki gëstu ko ba waxtu wu ko sariha soxla mu fab ko teg ci sa kanam loolu yoonu murit wi noaje sañ Mbàkke bu sa lan xamoon mu taxawe ko ak sëñ soye bu mu sëñ Tuubaa sëñ Aboo Bakrin jërëjëf Mbàkke sëñ Tuubaa dafa ne sifaatu saadixil muridi bi melaw murid saadax ci gàttal arbaxatun ñeent la na samtuha way naa ko xaw faxtiraar ngir ragal waru asidqu fi mahabbati sayxi abad dëggu ci bëgg sëriñ bi te sax ca su manti saadu amrihi hay su warat topp ngay def la muy digle fu mu rote wa maahu salabu ixtiyaari li ixtiyaari sànni ngir rafetuk njorta bilaa inkaari rafetuk njort googu nag nii nga mel moo nu koy mën a fàggul njortal murit yépp rafet ci yow nii nga ko defe bu fekkonte ni sëñ Murtala sa waajur wu baax wa wala sëriñ Tuubaa sa maam ju baax ja dafa del si woon dina mënoo cee sansé dara mënoo cee dolli dara te lu dul lii nag dalul sunu xel nun ndax yoonu murit sëñ bi dani li nga xam wamin makaayidi laxinil mujrimi saddul muridina ani taallumi dama toog fii di seetaan ab conférence ca Tiwaawan benn waay wax ni sunu hadara euh, tijaaniya bi yaari yëfa fiy jariñ al ilmu wal amalu ma dafa am jaar ak ju mu bàyyi foofu ju dikkul du am njariñ ndax al ilmu wal amalu amalu boobee bu ayu amalin waaw wal amalu bi ma alima jooju moo am njariñ waaye wal amalu man ngaa dem teg fi am xam-xam ba noppi teg ko fee def lu bokk teg la nga xaman ah fii ci tariqatul muridi nag muridi ya nag lenn képp a jariñ mooy imtila ñaar imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi ci hadara hadara xadimiya bii imtisaalul awaamiri wa wajtinaabu nawaahi moo fiy jariñ maa ngi bëgg a xaabaabal taxawal tuuti ma ñëw ci sant goo gi dañ koy sant sëñ Xalil Saar sëriñ Xalil dara sonalu la Saar lu dul këf ca sa baay ba ay axlaax yoo xam ne yi mënee sur na nuri nit nii nga niroo sa baay ba noppi niiru ko saatan wala xalxan wala xuluxan nur ko nekk ni nga duppee jëmmi sëriñ saar ja wallahi alasimi na nga jikkoo duppee jikkoy seex sëriñ saar ja seex sëriñ saar dafa mos a bëgg jàmbaar dafa bëgg sa bëggum jàmbaar te moom yàlla dogaloon na mu dajeeg warum fas akum fetal te yow yooyu yëpp yàlla sa euh, euh, dajale wulaak moom nga am fitna lool nag ci maanaam bëgg a wane li nekk ci yow ci njàmbaar lii rek la sonal waaye ku xam Cheikh sëriñ Sarr xam nam bëgge woon jàmbaar eh, ci jëmmam ni la ko bëgge woon ci doomam ni la ko bëgge woon ci taalibeem musta bëgg ko yembare musta bëgg ko sàggane boppam ci wàlli cet wala ci wàlli dara doon nit ku nite nite ga nag maam Cheikh mi jël na ca lu bari waaye taalibe ga taalibe ga nga xam ne moo nekkoon ci Cheikh Ibra Sarr nekk ci sëriñ Adama Gueye Modou Mamoun mee ko jël diir bu néew rek mën na ci fitna wu fitna joo xam yow mi xamul fu mu cosaanoo dalay jaaxal sëtub sëriñ Tuubaa ne mu daal di feddalik laxasaayam dal koy jéem a xas daal lu mu aajo wàllu nekk mu bëgg ko koo teewalal boppam teyu ko noorun ala noor ji baagante ci moom moom la munta supporter teey gawan ca nijaay sëñ ak xel mu rafet na xam nga àdduna lépp a ngi ci maam Cheikh Saar mi tey dama jooy ba sama bakkan di lang ndax tiim ko mu tiim dawal gi mel ni nijaay sëñ Saar nam daan toppatoo xéewal yi man lépp ci sama kanam la wan ba ma tiimee dabi ndawalam ya gis koog nam ca defe yitteem nam ca defe himmatoom te himmatu maanaam boo ko jëlee ci ni dara desatu fa alhimmatu aqtau min as-sayfi Sëñ Tuubaa bi muy tagg sahabatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi alayhim sawrtifaai himami la leen takke la leen tagge mooy yëkkati ku yitte nit ku la gën a amuk dal gën la mën a yëkkati yitteem gën laa amuk teey bu ngeen seqee mbir booy bon wàcc ko ci loxo mu yore tadd biir la ma dikk ci sëñ Sidi Sarr sëñ Sidi Sarr la sëñ Tuubaa njëkk liir ci law lawxul mahfuus ba mu ko njëkkee gis saqiya man lam yëhwak la fekk ñu bind ko ca saqiya texee dina man waaja nga lam yahwa ka soppu la waaye baat boobu dafa mel ni da ko rafaatal sëñ Sidi Sarr wallahi al asimi wal quraanil karimi ku soppul sëñ Sidi Sarr da nga texee di nit la koo xam ne du ma jéem a dugg ci lim ay jikkoom yu baax ndax lu ma lim lim lim lim matal nit koo xam ne dara du yitteem lu dul xiraatul xasaayidi xiraatul quraani wal xasaayidi jàng alxuraan ak jàng xasida lii la yittee doo tudd mbokk ba mu dugge ca lu dul lu rafet yamale ñëpp jaboote ñëpp taxawu ñëpp yéete yéene ñëpp lu baax waaye laa xarwa ndax sañ mat saar waajur wi nu ko wan dégg naa ci sama noppi bopp yii mu wax ni néew bu ñu tànk tëral ku dul sëriñ Tuuba maa la ca man musuta dugge ci mbir lu weesu faatihatul kitaabi ci lay fal ci lay folli ci lay def ci lay dindi ci lay faj ku wopp ci lay ràmm ku dee lu muy def musta weesu faatihatul kitaabi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ahuusu billahi min aseytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil aziim. wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. xadaraati saadaati xadaraati ixwaani fi diini llahi walmahabba fa liya xaayatu saraf bi an ulqiya ilaykum kalimata tahiyaati alxaalisati ila saxsiyaatikum alkarima ayuha alixwatu almuslimuuna fi kulli makaan نحييكم بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi muslu seytaane te xam ne kàttan moom ak pexe yàlla rek mooy ki nga xamante ne bi ne moo ko am kon ñu julli ci ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne lu yàlla bind moo tax ñu bind ko ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha wa ya ayuha alladina amanu sallu alayhi sant nag sunu yaakaar yi tey ak ëllëg di mawlaana al cheikh ahmadu bamba al mazhur bi xaadimi rasul di wax ne kàddu gii nag teraanga la boo xam ne sunuy bokk di sunuy doomi bàyyi ñoo nu ko terale moo tax rek yëkkati ko waaye daanaka rek mënoon naa ñàkk waaye nag comme waxtu bi dafa xat dañ koy tënk di siyaare sunu sang sii nga xam ne ñoo fi nekk di waa kër Cheikh Ahmadou Bamba kon ci wàllug Mbàkke suñ ci tuddee kii nga xam ne mooy doomi ak Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbàkke ñu di ko wax sëñ Mahmoudan teg ca ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Baara Lahat di doomi sëñ Abdul Ahad Baara ndax sëñ Abdul Aziz guy mbind sëñ Abdou Lahad Baara moo toppoon ci moom moom mii nag yu mel nii saa yu amee ñu min ko mu fay teew ci ndigalal a Cheikh Sidiyal Muxtaar mbakke kon dañu wax ne bala may wax dara kenn ku ne ci mbooloo mi moo xam ngay góor wala ngay jigéen na wax ci sa làmmiñ ne sëriñ Cheikh Sidiyal Muxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér. Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke yàlla na fi yàgg te wér na ko ñépp wax. waaw ndax da koo mat kon ñu teg ci ki nga xam ne tey moo fi toog toogaayu sunu maam Cheikh Ibrahima saar ñu gën koo xam ci Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ di Serigne Sidi Sarr Serigne Sidi Sarr nag mooy juróom-ñaareelu xalifa. Cheikh Ibrahima Sarr sëriñ Cheikh Sidal Mokhtar mi ngi toog tooga yëpp sëñ Touba mooy juróom-ñaareelu xalifa sëriñ Touba kon tey fii ñu taxaw bala may wax sëriñ Khalil Sarr moom itam ñu ngi koy siyaar bu baax ndax tey moo fi toog toogaayu bàyyi sëriñ Sarr di wax la bàyyi sëriñ Sarr doon wax di def la bàyyi sëñ saa doon def ànd ko ak ay rakam ak ay mbokkam ak taalibe yi ñëpp damay tënk nag fii waxkat yi yàgg nañ ko wax mooy mux-mux wax nañ ma ne ma sanc nañ ko bu jëkk boo xam ne booba jéggi na bi waaye sañcoom ñaareel bi nag mooy fii nga xam ne sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba yaakaari jaam yi moo joxoon bay sëriñ Saal ak ñaan goo xam ne da ko waxoon na ko fépp foo bañ mu gent nanga ko fa def bàyyi sëriñ Saal tey na ñaan lu yàgg te bàyyi sëriñ Saal am na ay barab yu bari ci réew yoo xamante ne sañcoon na ko du jar ma di ko tudd ndax taa bi dafa gàtt mu nekkoon fii di fi jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala ak di fa liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba waa kër Serigne Touba yi ñu bari fekk nañ ko fii moom nag niñ ko waxee Cheikh Ibra Saar Njaañ jëf jii nga xam ne tey ñi ngi koy jàng léegi mu jasaaka jasaaka damay wax ne moo mag eh, yoon wi bi ko sëñ tubaa di wax Ibra boobu booba njëbbal xewagul am na ku ñuy wax yéeri jaxate moom la sëriñ Tuubaa woo ne ko yéeri ñëwal defaru ma yónni la mu ne ko mbàkke kon damay jël bind mu ne ana Ibra mu ne ko maa ngi nii mu ne ko demal defaru te ñëw ma yónni la Ibra Sarr ne ko mbàkke jekk naa wax nañ ne baatu jekk naa boobee keroog la bal ba tàkk kon duma ci sori ndax conférence yi ñoom mooy ab yonent la woon mooy soxna jeet ture mi nga xam ne mooy waajuru soxna Fat Ja Mbàkke moom mi nga xam ne mooy xaadi mooy taawub Xaadimu Rasuul ku ne xam ne ne Ibra Sarr bëgg sëñ Bamba moom la def am na ko wax léegi te sëriñ Moustapha Lo mu sëñ Dam Abdourahman Lo wax na ma ca làmmiñam ne ma dem gi seen maam dem ku baax ki moo waroon a dem Ibra Sarr ne ko maa lay demal alxuraan nee na yamaxallaahu maa yasaau waaye nag wa yusabbitu waaye nag wa indahu ummul kitaab bi yàlla dogalee Cheikh Ibra dem ki ku njëkk wuutu moo jur sëriñ Sidi Sarr mii ñu di ko wax sëriñ Modou Sarr ma amit loo xam ne danaa ko wax fii sama jur sëñ Mor Jaar saar moo a ko nettali bàyyi sëriñ Sarr ak magam sëñ Modou Sarr juróom-ñaari weer ak juróom-ñaari fan lañ magante juróom-ñaari weer ak juróom-ñaari fan lañu rawante ci ak dem loolu maanaam am na ñoo xam ne xamuñu ko bàyyi sëñ Saar nag bi mu amee ab taawam ku ne xam na ne njabootu sëñ Tuubaa rekk la ko tuddee ak bokk yi moo xam muy góor moo xam muy jigéen kam ci jëkk am ñu tudde ko sëñ Basiiru Mbàkke ñu doon ko wax sëñ Basiru Sarr jaamu sëriñ Touba sëñ Moodu Sarr mi nga xam ne moo ci toppoon ñu tëdd ko waajuru sëñ Sidi Sarr mii kon may wax ne kër bàyyi sëñ Sarr ñoom ñu bari dañuy roy ci ñoom ndax sëñ Xalil Sarr mii ma leeral ne moom formation yëpp sëñ Basiru Mbàkke la te sëñ Basiru Mbàkke mooy yoonu murit sëñ Basiru Mbàkke mooy Sénégal dama koy tënk su fekkee ne amul moom dana ko xam keroog bañ ko soxlaa sëñ Basiru soxla ko mu war ñëw ci moom ma ko fekk daara yi sëriñ Mor Mbay Siise lu nekk ci moom mook sëñ Basiru Sarr jaamu sëñ Tuubaa sëñ Basiru Mbàkke moo ko def ci ñoom ñi ci des itam ci njabootu bay sëñ Sarr doomi sëñ Bamba moo leen yar njaboot sëñ sa bay sëñ Saar gépp ku ci dudul sëñ Saar ndax sëñ Abdou baayam sëriñ Saar moo ko yar waaye ku dul kooku rek ci njabootu bàyyi sëñ Saar doomi sëñ Tuubaa moo la am na bis nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na ko yàlla fayal ci loo xam ne man maa ko fekkee kenn nett liwu ma ci këram gii ci Touba marché Ocass ndaw ñëw déy sama wayjur sëñ Mor Jaar Saar ne ko koy wuy bàyyi sëñ Saar feex jama ca am mu ne ma ñëwoon dem mu nuy bàyyi sëriñ toog ak bàyyi sëriñ nas tuuti sëriñ Abdoulaat fëggul dafa jëkk-jëkki rek daal dugg si ci biir néeg bi ba mu ñëwee itam dafa toog ci dër bi bàyyi sëñ Saar ne ko déedéet Mbàkke ëpp naa def ñëwal toog fii mu ne ko waa ji sëriñ toogal xanaa xamoo fi ma la teg bay sëñ Saar ne ko ah kon de xanaa damay wàcc toog fi suuf waaye doo toog ci suuf may toog ci kaw te it naa ci lam ñu bay sëñ Saar mu ne man sëriñ Saar ak seex Mouhamad Lamine Baara moom mi nga xamante ni mooy waajuru seex Baara Lat mii boo koy tudd nañ ko léegi ci sëñ Touba nu mu leen boolee woon waaye loolu duma ci jaarat waaye nee na saa yu ñu xëyee sëñ Touba ku ci ne dana jël alluwa bindal la sa bind sala nee na sëñ baara day xool alluwaam rek waaye bu tari jotee mu tari mu ne xam naa ci sëñ tubaa loo xam ne ak sëñ baara waaye sëñ baara moom du wax kon bàyyi sëñ saar nañ xam ne da daan wax ne képp koo xam ne fekk nga ma fii ci mox mox danaa xam ne sama yitte sa yitte la kon nag képp koo xam ne sa yaakaar fii la aju ci kar bàyyi sëñ saar na nga xam ne yaakaar ju mat sëkk la balaa may jeexal nag ñu am tuuti luñ leeral ci Cheikh Sidil Mokhtar ndax sëñ Touba mi nga xamante ne moo yaakaari jàmm yi dafa bind wax ne yan qaadulil ilhaama wa tawfiqa man kaana li xalifatan rafiqa sama borom wamatal na ma li ñuy wax ilhaam wamatal ma li ñuy wax tawfiq ne nag loolu suñ demee ba gisatuñ ma képp ku ma fi wutu nee na tawféex boobu ak ilham boobu day ànd ak yow kon Cheikh Sidi Muxtaar ci njëlbeenu xilaafaam ci jullikaayu xeet ba bu jógee taxaw wax ne lay bàyyi ko ci sëriñ bi di rot jëm si yéen ma koy yëkk loolu ilham la hmm. tekkee itam am mbënd am ci senegal mu yëkkati un milliard et poussière hmm. def ko ci loola tawféex la kon nag nañ ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér taalibe yi jumaa jii nga xam ne moom la Ibrahima bay doon wax bokk na ci jumaay sëñ Tuubaa yi ndax sëñ Tuubaa dafa bind ne wal tusbitan fiihi jamaahatan tuqiim asalawaatal xamsa dahaban yaa akim kon nag ñoo ngi sant njabootu bay sëñ saar bu góor gi muy sëñ Xalil ak i rakkam ak soxna say ak sët yi nga xamante ne bii ne ñoo doon liggéeyal seen maam ngeen xam ne lu baax ku ko def sa bopp wa kullu xaamil wa antum bi xeyr wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ Baara Laat nga xam ne moo fi représenté sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke di teg ci nuyoo bi sëñ Mamadou Mbàkke di nuyu sëñ Xalil Sarr ak ñu sant saar ñëpp ñi nga xam ne ñoo waral jotaay bi tey bu di nuyu sëriñ si fi teew yëpp ak julli yi fi teew yëpp ak taalib yi fi teew yëpp góor ñi ak jigéen ñi di nuyu euh, adjoint préfet bi nga xam ne tey préfet dafa am gàllankoor yebal ko ñuy wax Alioune Badara Diaw di ci teg préfet bu kokki di wax Pape Abdoulaye Ba teg ci chargé de mission ku wax Sele Ndiaye teg ci commandant brigade bi kokki teg ci mboolam julli yi fi teew yëpp ah di nuyu itam l'ensemble de conseiller yi nga xam ne ñoo fi teewal tey gàmm gi seen ak gàmm la ñun sax jaruñu nuyu ndax ñoom ci fi bokk kon gàmm gi day gàmm goo xam ne gu rëy ci ñun ci commune bi lépp lu ci waay def rek mel ni na commune Thiamène moo ko defal ñun de lépp lu ci seen war a ko ci def ndegam soob na yàlla ah waxtu wi daaw ñaanoon nañ fi waxoon nañ ko euh, préfet bi fi ñëwoon daaw ne ko ñun de liñ bëgg mooy yoon wi nga xam ne moo jóge fii ci godoro bi ñëw fii ci kër sëriñ bi xam naa ne ñu ngi ci waaye dañ koy fàttaliwaat rek xam naa ne ñu ngi ci waaye dañ koy fàttaliwaat rek kon loolu mooy li ñu gën a soxal te itam affaire dëkk bi ñu ngi ciy jaan yàlla nañu ci yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm weeru koor wi ñu génn lépp lu ci jàmm yàlla ñu ko yàlla nangul ah di wax ne ñun day eh, yéene bi ñu am ci dëkk bi liñ ci yéene yàlla na ko weesu njort liñ ci bëgg def lépp day xëy na day ah, liñ ci mën danañ ko def liñ ci tollool lépp loo xam ne soxla nañ ko def te xam ko danañ ko def ndagam na yàlla ah guddi na di leen ñaanal képp ku fi ñëw yàlla yàlla yàlla ko yàlla delloo ci jàmm yàlla ko yàlla delloo ci jàmm yàlla ñooy faral suñu bàkkaar lépp lu ci bëgg yàlla ñu daal defal bi jaay Seydil Wujuud wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Mahmadan mi nga xam ne moo fi toog ci kilifteef toog fi toogaayu Cheikh Sidi Muxtaar di nuyu sëriñ Xalil Sarr ak rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal bàyyi Serigne saar ma nga xam ne moom lañuy defal bis bi tey tàmbalee ko ci Serigne Mamoun tàmbalee ko ci maam Cheikh ba ci Cheikhouna di leen nuyu bu baax jaarale leen ak góor ak jigéen mag ak ndaw ak mbokk taalibe yépp di jaarale nuyoo boobu Serigne Khalil ma nga xam ne moom la yàlla teg ci kanamu njaboot gi te mu mat ko sëkk. ñoom wax dëgg yàlla mën naa wax ni kenn nit lañu du ñaar du ñett du ñeent ni leen yàlla boole ñu bokkee ni seen wajur wa nee yàlla nuróole seen jikko te defe naa su ma ko waxee sax dina jaaxal ñu bari ndax ngir jàpp ni miinu ma leen waaye ànd ak nit tukki loo xamul ci moom ka ko judd lu dëkk ak moom ba xëy faatu mënu koo xam ci moom rawatina nag ànd ak nit dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te sëriñ Seexuna mi ànd na ak moom ñu jóge fii dem Màkka ba ñu dellu si fu ñu dem ñoo fa ànd kon jikko yooyu nga xam ne moom laa gis ci moom ban dem ba dellu si moom laay xool ci sëñ Xalil mi moom laay xool ci sëñ Maamun mi moom laay xool ci maam Cheikh mi ndax defaru sëñ Touba dafa nuróowul ak defaru kenn kon nag ñu ngi leen di nuyu tey nuyu bokki taalibe bokki caaréen ñi fi daje yépp rawatina euh, xalifa maam sëriñ maam maam maam Cheikh Ibrahima Sarr di sëñ Sidi Sarr ñu di ko nuyu di ko jot li nuyoo Cheikh Sidi Muxtaar ak cantam ndax waxtu wu nekk ndawam yi itam noo ngi koy gis di nuyu mbokki caareen yi fi daje yépp góor ak jigéen mag ak ndaw te di leen sant ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne am nañ ko ci seen jàmbaar ju tedd ji di nuyu bokki taalibe yi yépp itam di leen sant bu baax ci seen taxawaay bu rafet bii ñu am ci ginnaawu sëriñ bi ndax kenn ku nekk la nga am mën naa wax kenn ku ne sa pañe moom ngay duggee marché ku ne sa pañe moom ngay duggee marché te war na laa doy sëkkitam te Serigne Touba suñu borom daf koo may may yoo xam ne géej na ba kenn ku ci kenn kuñ tibb jox la rek jàpp nga ne yow rek yow la li sëriñ bi amoon yow la ko jox te fekk géej la kook sa nga ci tànga munu caawaan ñi dara ndax dafa am ku doon wax sëñ bi ni ni ni ni ko ni ko ni ko géej nga mu ne ko géej laa jéeri laa waaw mu ne ko yow géej nga mu ne su laa jeexal mu ne ko géej laa jéeri laa boo xoolee bu gisa toom ndox di nga gis suuf mbaa ngi gis montagne kon ñuy nuyu mbokki jullit yépp di nuyu mbokk yi fi teew yépp di nuyu euh, préfet bi ci sous-préfet sama ànd ak ab CM ak ak maire bi ak autorités yi nga xam ne dañoo ñëw ñëpp ngir teewal bis bi ak jëmmal ko ma di leen jot li nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ak cantam ak ñaanam ci seenu doxin ci taalibe yi nga xam ne da ngeen a dëkk ak ñoom di sàkku cant googu ngeen jàllale ko ci seen kilifa yépp ba mu àgg ci président de la république muy cant ak ñaan ci bu bàyyi ko ci Cheikh Sidi Moukhtar di nuyu mbokk jullit yi nga xam ne dañu fee teew yépp di wax rek ni guddi na kàddu gi moom daanaka jurub guddal ndax li fi mat a digle ki yore kàddu sëriñ bi dana ko digle te defe naa ñi fi jot a jël kàddu ñépp euh, daana léegi liñ fi wax daanaka mëneesoon na ca yem def ko muy kàddu sëriñ bi sëñ bi mbay bi mu daanaka daanaka xaweesoon na cee mën a yem euh, sama sama jaam bee bi mu daaneele léegi xaweesoon na cee mën a ndax ndax ndax waxu sëriñ bi rek lañu wax ndax wax ji ñu wax mat na tegu na ci xam-xam te rafet na te itam waxu ku ñàkk kiñaan la te jamono ji kiñaan gi dafa yaatoo yaat ni lekk ak naan baree suuf si baree ni yaatoo ni ni la kiñaan gi yaatoo léegi suñ jamono ji te kiñaan maanaam day day roncé ab xol maanaam xawma roncé nu ñu ko mën a waxee maanaam day day day xetañ day xetañ ab xol da koy xetañ muy ruus di ruus di ruus ba mu yàgg ñu ne waa ji daa cancer mu daal di faatu te bañ dogalub yàlla moo koy teg bu faatoo nag day dem sawara sax dolli ci te moo yaatu ci jamono ji loolu nag ñoom nag ku dégg seeni kàddu fii xam ne loolu dalu leen kon sëñ Xalil ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu sëñ Mahamadan mii ci sawet moom it comme ni ñu ko waxee léegi rek dañu am ci moom ay cër yu bari cër yi mooy suñu wajur dafa jàpp ci suñu loxo boole ñu ak sëñ Mourtala ni ko kii de benn bis laa sa am ci wajuram bu jigéen lu ma naqari ba mu ko tëralee ci buntu bàmmeel laa ma sa am lu ma naqari te tegu ma ko yàllaa ma ko teg boole naa la ak ñuy dem di dem ba sëñ Mourtala estikaafam bi dugg dugg jàkkaam bi mujj deux di du matin mu di ma wërlu di ma wërlu di ma wërlu ku tudd Moustapha Sarr di ma wër ba gis mu jiitanu gee ay ay deuxième ñu dugg ci biir wëlis wu mu laaj rek ubbi ko tagaat wëlis wu mu laaj ubbi ko tagaat ba mu jig mu jógal boppam jëlu wëlis génne coow kayit daal ne ma sàllaaw kii de boo ko dee jëfandikoo suba ngoon yàlla mi yore ndimbal moo lay dimbali ma ma fab koo def ci sama poos mu ñaal ba may dem mu ni indi ñu màndargaal ko ndax weddikat yi dañoo bari daal di bind ca kayit boobu Muhammadu Murtala ibnu Xaadim Rasul am na ko doom joo xam ne ba ma ko ne def lii daawu ko bind Muhammadu ibnu Xaadim Rasul xel musu koo xalaat bind fenn mu ne ma tey laa ko jëkk gis te kooka doomam ma xam naa moo ma moo ma féete ay at sam kon ñun am nañ ci yow ay cër yu bari kon fu ñu la gis rek di la xoole jëmm jooju te di la ñaanal ngir fu ñu tegoon nuyu bu baax sëñ Xalil di ko jottali cantu Cheikh Sidi Muxtaar ak siyaareem ci bisu maam Serigne Sarr bi ak ñaanam loolu nag su su su suñu ko sëriñ bi santee ñu def ko dinañu sawar ndax ndax te seede lay doon te seede loo xam ndax at mu ne ñaata yoon lañ mën a wàññi nga ñëw ci sëriñ bi yenn saa yi doo ànd ak kenn sax dangay ñëw rek soxlawul kenn di la intérêt ñu naan diwa ngi ñëw ak nangam ak nangam dangay ràqloo ci mbooloo mi rek joxe si addiya génn dem ñu di ci teg suñu bët ñu ñeneen tam di ci teg seen bët kon nag bu ñu sëriñ bi yónnee ñu sant la ñu siyaara la ci sa bisu waajur bi ñu ñaanal la yow ak sa rakk yi nga xam ne ñoom nga àndal bokk ak ñoom kër gi loolu danañ ci sawar te danañu xam ne sëriñ bi itam képp ku muy liggéeyloo dafa bëgg nga añ ku narul nga añ du la liggéeyloo ndax boo xaaroon ba weer dee nga ŋàbb say chiffre dem ca banque ba ni ni ni bulletin de solde bii laay jël si ñu seet machine bi gisuñu ko doo fay boo ŋàbbee bulletin de solde jàmbur boo xam ne xam nañ ni mi ngi ci machine bi sa tur nekku tax nga fay te ku ku dul xëy doo gont munoo am bulletin de solde ca ca béréb ba ñu fayoon xëyul gontoo munoo ko fa am kon ku liggéey gëmal ni di nga fay te te te borom penc mii ku fi ñëw da nga xam ne liggéeyal yàlla mooy li nga xam ne moo am solo ndax defe naa ba mu koy ci ak tey jii wuute na lool mbooloo mi fi toog tey jii yónneewuñ ci kenn paas euh, luyeeluñ ci kenn kaar newuñu kenn mënoo bañ a ñëw ndax boo ñëwut yëf fi yàqu ku ne sa sagoo la fi indi sa alali bopp ju la leew la fi indi loolu kenn ku nekk xam na ne ku liggéeyalul yàlla ba am ngërëmul yàlla mënoo ko waaw te koo xam ne sa maam lu ne ci moom sëñ tubaa ko ca def eh, koo xam ne sa baay lu ne ci moom sëñ tubaa ko ca def yow ci sa jëmmi bopp lu ne ci yow sëñ tubaa ko ca def kon yow da bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon aw ñama dañuy wax ne laax nga kii to kii daa togg laax kii togg ci ci faay suukar ko bu noppi indi sotti ci dara du ci des lu jëfandikoo te ku leen gis seeni doxin ci réew mi gis seeni doxin ci jitaay bii yarab bi teggin yi cérémonie mu ne mu ne dinañ fa dem fu nekk lu ne gis nañ ko waaye gis nañ fii ab yar gis nañ fii ay teggin gis nañ fii toppante gis nañ fii kilifteef gis nañ fii itam ñàkk ki te yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne day développé day développé waxuma ab julli sax mais développement bi gën a gaaw mooy jullit ñi ñu boole seen xol yi nekk benn di jàppandoo yëkkateendoo rek balaa am quatre heures jullit ñëpp am jàmm li yàlla bëgg lépp moom développement boobu mooy bi gën a gaaw ndax alxuraan moo ñu ko sant waxte si moo beebu lay jàmmaan wala tafaraxoo innamal mu'minuuna ixwatun fa na bayna ko ñaari aaya yooyu jullit ñi buñ ko jëfandikoo woon kon lii ngay dégg ñu naan terrorisme rek dugal na fi génn fi am terrorisme bii ngay dégg nii du dara lu ay nit ñun jàngal te yaruñu leen yar yaru ñu mel ni maam Serigne Sarr ñoom ñii ak daaray Sëñ Tubaa jawoon ca Mbàkke Kajoor ak ña ca bàyyi ko woon ak ñi ñu doon yaraat ginnaaw bi ba yegg si fii yar yooyu képp ku ñu ko def doo gëm leneen lu dul suñu borom doo doo dox yeneen jéego yu dul jéego suñu borom fii nag koo dégg ñu nit at attentat sàngam moo ko def bu ñu ko seetee ab ingénieur la wala doctorat wala nàngam nangam wala yu kenn xamul ku jàng lay doon du nekk illettré du nekk nit ku xamul dara ignorant du ko nekk ku jàng doon waaye dañ ko jàngal te ko suñ réew mi sax boo xoolee am nay benn benn yoo xam ne am nañu xam-xam te teguñu fañ war a tegu te dara defalu ko ludul dañ leen a jàngal te yoruñu leen te Sëriñ tubaab bu la daan jox nit pour muy jàng day wax ne ñaar yi bu munta ñàkk muy xam-xam bi ak yar bi bu munta ñàkk na xam-xam bi manqué te loolu boo ko waxee day jaaxal ñu bari boo ko waxee day jaaxal ñu bari waaw te te te te Sëriñ Tuubaa moom du wax mukk loo xam ni xam-xam li mu baax baax xam-xam boo xam ne ñaari li mu baax baax ñaari yëf yii rek la da lay gindi wala mu gëlëmal la xam-xam da gindi wala mu gëlëmal la te saa boo xamee ne yaa ngi koy bàkkoo rek saa boo xamee ne yaa ngi koy bàkkoo wala nga wala wala wala wala andut akub yar mi ngi mel ni fasu naaru góor woo xam daa daw baraw ci ab course te ab sooke nekkut ci kaw kenn du ko fay kenn du ko fay kon euh, ñoo ngi sant nit ñi maanaam wax ni loolu ñu wax ci ci ci ci diggante yar ak xam-xam tekkiwul ni sëriñ Touba dafa fonkut xam-xam tekkiwul loolu ndax sëriñ Touba lépp lu mu am ci kaw xam-xam la ko teg ba am ko lu mu am rek daana jëf-jëf yoo xam ne dañ koy tegug wilaayee sax te fekk loolu ci xam-xam la ko jëf ba am ko parce que ba muy ba muy sànni der bi ci géej gi ñu bari ay affaire wilaaya lañ ko teg ak nangam mais sëñ bi def ni géej gi mbindaafun la man mbindaafun laa ñi ma ne ci seen gaal mbindaafun la gaal gi mbindaafun la ngelaw li mbindaafun la ah environnement bi ñu wër lépp mbindaafun la te kenn ku ci nekk am na la sa borom sant te da nga ko def kon nag ma ne li ma sama borom sant dinaa ko def jël jël jël der bi sànni ci géej gi def la mu bëgg a def lépp kenn ku nekk yaakaar ni naan diwoo ko fa jiitoog diwoo ko xaar ak diwoo ko kii ca suuf ak nangam ak ngëm yàlla ak xam-xam ci la sëñ Tuubaa defe lool pas-pas ak gëm yàlla ak doyloo yàlla ak xam ne yàlla képp mooy boroom lépp mooy boroom fépp mooy boroom ñéppita kon euh, suñu jitaay fii dañ ciy am mbégte lool waaw dañ ciy am mbégte lool ndax li li ñuy li ñuy wut ci kër yi sëñ Tuubaa yi boo ñëwee fekk ko fii xam nga li li doon metti jóg ñëw fi gis fi comportement yoo xam ne dëppoowul ak yarub sëñ tubaa comportement yoo xam ne dëppoowul ak ndablu sëñ tubaa raxas ba def ca la mu cay def fii ñun duñ fi fekk mukk ci yiw loo xam ne danoo bett ndax dafa naa euh, li ñu doon jàng ci kaw léegi gisaa ko yaa ko lu jooju ba mu jeex dafa naa amul ku ko sëñ tubaa wax te gannaaw Cheikh Ibrahima Sarr waxaatu ko keneen loolu doy na sëkk kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tey digal nit ñi ñu sax ci jaamu yàlla di digal nit ñi ñu sax ci nangoo liggéey di digal nit ñi ñu boole seen bopp nekk benn di digal nit ñi ñu nangoo jaamu yàlla te jàng te jàngal gone yi tey te njàng mi ànd akub yar ñun nag du caagi nag dañuy dem ci ay baas rek naan nañ jàngal gone yi nañ yar gone yi nañ nàngam ak nàngam nit lépp lu muy digle daf caa war a ne waaw nit lu muy digle daf caa war a ne ku ñëw fa nga nekk teg ci sa bët xam ne yow kat toogoo ci ab baas jàpp ni dangaa yor kàddu sëñ bi rek naan nangam ak nangam déedéet ak nu mën a demee li liy jariñ jullit ñi liy jariñ taalibe sëñ tubaay yi liy jariñ réew mi ci boppam foo toll da nga koo war a wax te boo koy wax itam yow danga nga caa war a nekk nga xam ne ku la ne li ngay wax foo ko teg ba di ko wax nga ne fii laa ko teg ak léeg léeg léeg nii wane ko nit gis ko waaye doo ko wax doo daj doo daje rek wax ko dem te yow doo ko jëf kon euh, phénomène yii xew pour arrêter ko fokk ñu jiitu ci base bi ca base ba la ñu tàmbalee base bi mooy jàngal gone yi yar leen ci njàngu mag ñi yar leen ci yarub mag ñi itam nga xam ne la la ñi daan bañ danañu ko bañ lañ daan bëgg danañu ko bëgg lañ daan xool danañu ko xool lañ daawut xool dootuñu ko xool parce que nit ku xamul boppam amul bañ te te te te mënoo xam sa bopp te waxuñu la ko kenn kenn kenn xamal sa bopp sa bopp bala ngaa xam sa bopp dañ la koy wax te ki lay wax ki lay wax sa bopp itam day jub day maandu day gore day nangoo jaam yàlla day doylu day ngëm day am pas-pas nag boo xam ne du ko du jaawale suñu borom ak dara du jaawale suñu borom ak dara waaw comme guddi na te waxtu wi itam sori na li ñu bëggoon a wax lépp ëpp na loolu wante nag euh, ginnaaw ñeneen dañ cee am wàll kon foofu rek lañ la la ñu yemale kàddu yi di gën a yóbbante préfet kentu sëñ bi ak ñaanam rek ci ci président ci ay jëfam ci réew mi ci ay jëfam ci gox bi ngeen nekk ci taalibe yëpp ndax moom amul soxla soxla taalibe yi mooy soxlaam te xam na ni mi ngi taxaw ci soxla yi mi ngi taxaw ci soxla taalibe yi kon nag ñoo ñoo ngi koy jottali ngërëm bu baax a baax euh, képp koo nga xam ne sëriñ tubaa da dey day sa yaakaar wala mu meññ la wala nga laal ñu bokk wala nga laal lu bokk ci moom war ngaa nangoo jaamu yàlla war ngaa nangoo liggéey war ngaa nangoo doylu alal jii li muy bari bari sëñ Tuubaa mosu koo soxla buñ ko mosaan indi dañ koy gas suul te tey jii ñépp moom la ñu xëccoo te sëñ Cheikh Sidi Moxtaar bi mu toogee ba mu doon wax dara daf ne alal medd la te medd araam na ci jullit te tey jii koo seen moom lay xëccoo jamono ji li ma waxoon rek keñaan ak xëccoo alal ñaar yii rek akub dayo ak ndoom ak tànk bis bu ne ña nga ca rajo di waxante lu bon ah te te ñoom te ñoom ñii waxan ñii waxante lu bon buñ gisantee buñ gisante woon fu foo geestu gisuñu kenn danga naan ñii ñaar maanaa ñoo bokk ndey ak bàyyi sax ngay wax ci ci leen jëflante ci aw yiw nit ñi ñuy réeral ci werante ci rajo yeeg yu kenn xamut yooyu nañ ko bàyyi tey wax nit ñi dëgg parce que bu fekkee da ngay déglu fukki nit kenn du ci wax dëgg yow ngay gone guy soog a jóg mais boo jógee doo wax dëgg da ngay jàpp ni bàyyi jiw comme waxul dëgg man tamit bu ma neexee bañ a wax dëgg nit ñi nañuy wax dëgg tey jëf dëgg di dox dëgg ndax ci la lépp na ndax ëllëg bis dina ñëw boo xam ne lu dul dëgg du fa jariñ bis dina ñëw boo xam ne lu dul dëgg du fa jariñ te yoon lu sëñ Tuubaa jël teg ci nit ñi mooy yoonu dëgg ndax juróom-ñaari at yi am ci géej gi ak lim bind ak lim dox nag yañ ko doon booleel kaso yañ ko sànnee ràbb yooyu bënni tànkam yooyu yëpp diine dong moo taxoon ay doomam taxuñu woon ay jarbaatam ak lennam taxuñu woon taxawal diine wuutu sallallahu alayhi wa sallam fii taxawal ko fi nekkub soldaaram mat ko sëkk la sallallahu alayhi wa sallam sumboon lépp mu yàggaleel ko ko loolu moo waral dem ko Serigne Touba ci géej gi tubaab bi sax du caagi nag daa ñëwoon di ko yóbbu di ko yóbbu muy dem ak a ñëw ak a tubaab bi daf ko waroon na yóbbu ngir mu defi liggéey boobu yi bu ko tubaab bi yóbbutoon ni ñeneen dana ñu ñëw yóbbu ko ngir mu defi liggéey boobu ndax mënutoon na añ añ bii te liggéeyul ki dem damaa dem e, e, e, Italie ñu defa def màggaluk Mbàkke Kajoor waa ji laaj ma ne ma sëñ tubaab dañ ko tubaab yi ñoo jóge woon fii jël ko yóbbu ca Gabon mënaluñ ko dara ñu delloosi ko ndax ne ko dafa am luñ ko ne woon bu fi def nangam ak nangam mu ne luñ ko dara ñu delloosi ko mu di ko def man ko sëñ Tuubaa yëngul ci lool de daf leen ni daf leen ni bu ngeen ma delloosee ba noppi jéggal naa leen yéen ñëpp waaye dellu leen ca seeni dëkk waxuma man waaye dinaa fa yebal ay ndaw yu leen fa fekk li ngeen doon bañ ma di ko def ñu ko def ci seen kanam ci seen suuf ci seen alal te du ngeen ci man dara waaw man ne ko mooy seen xasaayit yi mooy gàmmo yi mooy cant yi sëñ Tuubaa waxoon na ko tubaab bi kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tey ñaan yàlla mu def fi jàmm dëkk bi moom ku xam sañ Baara Mbàkke xam ne dëkk bi dëkku sëñ Baara la waaw ku xam sañ Baara yi xam digganteem ak sëñ Ibra Sarr ku ko xam-xam ak ay doomam ànd na ma sama wajur man mii ñu ñëw jeewal ñaar yoon yoo xam ne bi ñu jógee jeewal yënduwun fa ba ba ba jotee danoo ànd dikk fii ci kër euh, maam Serigne fi laa yendu man ak sëñ bi ñaar yoon kon fii ñun duñ fi gan kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tey ñaan yàlla ku fi teew yàlla suñu borom faj sa aajo asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muhammadan Mbàkke di sunu sëriñ di sunu xarit mu bokk ci ñi nga xam ne dañu jàppale administration ci liggéey bi nga xam ne nii moom lañu son excellence monsieur le président Macky Sall sant dénkuñu ko ci département Louga suñu ñëwee dajeeg moom ci jataay bi dañ ci am mbégte bu baax a baax sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu di ziara sëriñ Cheikh Baara Lahat di la nuyu di la yóbbante nuyu ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides di nuyu Serigne Khalil Sarr nuyu la ci turu préfet du département de Louga Alioune Badara Diop nuyu la ci turu gouverneur de la région de Louga Alioune Badara Mbengue nuyu la également ci turu administration ministre de l'intérieur première ministre ak le président de la république sa doom sa jarbaat Alioune Badara Diop bi nga xam ne moom moo ñu fi yabal tey moom moo bëggoon a ñëw jiite délégation état du Sénégal mais ay trois heures ci ngoon lañ ko woo wax ko loo xam ne nii mënu faa ñàkk teew ci noonu la ma yebal man mi nga xam ne maay adjoint mu ne mën naa ñëw ànd ak l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Koki Pape Abdoulaye Ba ànd ak le maire de Thiamène Babacar Lo ànd ak le commandant de la brigade de gendarmerie de Koki Racine Gueye ànd ak le sargé de mission à la primature monsieur Sele Ndiaye ñu ñëw teewal fi administration tànk yi nag ci ñaari anam lañ ko mën a tënk benn bi mooy tànk kóllëre ndax préfet ba tey ci suba dana ne ma mux mux ëpp na ma ma ñàkk fa dem ndax woyof bi nga xam ne sëriñ Xalil am na ko ndax moom moo sol dàllam ñëw ba Louga seet préfet yëgal ko bés bi te mu mënoon ko cee bañ a fekk ndax bañ defee CRD bi fii ci kokki sous préfet yëgal nañu ko ba ñun ñu jëloon suñu disposition pour ñëw bokk ak yéen bës bi teewul moom ak coono yoon wi ni mu mel mu ànd ak ki nga xam ne nii moom mooy porte parole ñu ñëw ba Louga waxtaan ci ak préfet pour mu ñëw teew ci bës bi donc loolu nga def sedd na bu baax ci xolu préfet du département Serigne Cheikh Bara ñoo ngi rafetlu bu baax kàddu yi nga xam ne moom nga fi yëkkati te lépp nag mu ñuy delloowaat ci jaamu yàlla di ñu delloowaat ci nangu liggéey di ñu delloowaat ci dox mbokk te loolu nag jàpp nañ ne bis buñ ci saxee li nga xam ne nii moom la bëgg Sénégal mel président de la République bëgg ko yàlla mën nañu ko defal moo tax ñoo ngi ñaan ci yàlla kàddu gi nga xam ne sëriñ Baara Lahat wax na ko fi ñépp ñi nga xam ne nii teew nañ ci bâche bi ñu dégg ko yàlla dimbali ñu ci ñu topp ci parce que suñ ci toppee li ñu bëkk pour sunu Sénégal yàlla mën nañu koo may ñi ma jiitu li ñu wax day firnde ne fii muy mux mux suuf su barke la loolu bokk na ci li tax suñu fi ñëwee mënuñoo jël kàddu ba jeexal ci nawet bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal te état du Sénégal lépp loo xam ne taxawaay la bu mu ci waroon a taxaw ministre de l'agriculture ci ndigalu président de la république ñu jël ko fi ñu toll nii ñuy wax lépp luy intrant maanaam ñebbe muy dugub muy gerte dem na ba ci gox goxaat yi ba keroog samedi ci guddi fii suñ demee gouvernance Louga am na ñaar fukk ak juróomi tracteur yoo xam ne nii ñëw na te kenn moomu ko lu dul ñi nga xam ne nii ñoom la yàlla xiirtal ci mbay te ñépp xam mbay solo si mu am ci senegal loolu nag su ko état di def jaadu na ñu ñaanal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yor politique boobu la may ko kàttan ak xel mu rafet moom ko àggalee moom ak ensemble du gouvernement te li nga xam ne dégg nañ ko ci kàddu ci bërëb bi am nañ ci yaakaar sëriñ Cheikh Baara ñoom ngi lay yóbbante ci xalif général ne ko nañ gën a ñaanal senegal xam nañ ne jógu ci mais na gën a ñaanal senegal jàmm ji nga xam ne nii am nañ ko yàlla yokk ko lépp li nga xam ne nii ragal nañ ko te nga wax ko ci sa kàddu maanaam mbirum terroriste yàlla gën koo dàq mu sori suñuy frontière te am nañ ci yaakaar xam nañ ne bi su ko ñaanee yàlla dina ko ko defal donc ñoo ngi lay yóbbante loolu ci xalif général des mourides Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké kàddu yooyu la ma préfet du département de Louga Alioune Badara Diop yóbbante woon ne ma su ma ñëwee ci mbooloo mi naa ko fësal biral ko ki nga xam ne nii mooy Serigne Khalil Sarr di ko wax également autorité administrative du département de la région bàyyi nañ bu baax mux-mux am na programme bu mag boo xam ne moom lañ tuddee programme d'urgence de développement communautaire am na ci dëkk yoo xam ne commencé na ñoo ngi leen di defal ay pistes de production ñett xawma ñeenti weer ci ginnaaw yaakaar naa monsieur le maire bokkoon na ci ñi nga xam ne nii teewoon nañ ci réunion boobu ñu defoon fële ci commune bu Louga ci maire Louga liñ ñu joxoon ci kilométrage dañ ne suñ demoon ba ci toll ba toll ci dañuy waxtaan ak sous-préfet yi waxtaan ak les maires de commune ñoom ñu jox ñu ku ci nekk fa nga bokk nga xool fa nga xam ne ni yelloo na ñu def fa yoon ñu jox ñu ko ñu yónnee ko suñu kilifa te yaakaar naa suñu tolloo ci boobu naam ñun xamal nañ ko suñu bopp mais yaakaar naa lépp loo xam ne nii monsieur war na ko ci def le suuf préfet de Koki war na ko ci def ñoom dinañ ci taxaw ba mu mat sëkk donc ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah